xam nekk moo justement euh, euh, midi d'info daal di décortiquer ak yéen li nga que modi actualité bi ngak tolluwaay peut-être pour mieux comprendre l'actualité euh, ginnaaw lu le mel nak dañuy daal di ñëw itam si leneen mbokki xarit yi moy li nga xam que modi plainte sur plainte plainte contre plainte bokk na si bu ki nga xam nekk modi euh Alassane de Diop sànq maa ngi ko doon wax ak ki nga xam nekk Mamadou Ibrahim leneen accusante accusation sur accusation accusation contre accusation moy ki nga xam moo di euh, Cheikh Dieng alors Cheikh Dieng nag moom mu daal di génnaat tontuwaat ki nga xam ne que moo di le ministre euh, de l'hydraulique et de l'assainissement di ki nga xam ne que moo di euh, Cheikh Tidiane Dièye en tout cas nag Cheikh Dieng moom ne lâche pas l'affaire maanaam bàyyigul benn yoon mu nekkoon dina xam ne que moo di DG bu office national de l'assainissement du Sénégal di nga xam ne que moo di ONAS mi ngi accusé waat encore une fois ki nga xam ne que moo di le ministre Cheikh Tidiane Dièye si benn ko poste bi nga xam ne itam def na ko niki démb si guddi mom mi ngi révélé que ni euh, ki nga xamné que Modi Cheikh Tidiane Dieye Dozo Mur qui a écrit le communiqué de l'ONAS qu'il a fait signer par la cellule de communication qui qui travaille désormais les dimanches en tout cas mom mm, mu di japp ni l'objectif le ko tax a jóg mooy euh, créer benn que li nga xamné que Modi euh, contre-feu pour ñu oublier mm, problème yi nga xamni ni euh, nekkoon na si marché gré à gré bi nga xamni ni itam que ni mom Cheikh Tidiane Dieye mo nek ci ginaaw mom ki nga xamné que Modi Cheikh Dian néna euh, boobu de communiquer bi nga xamni itam Cheikh Tidiane def nako ko dafa bëgg a askan wi marché gré à gré bi nga xamni itam euh, signé na récemment car on sait qu'ils sont déjà la porte ouverte à toute forme de corruption manam déjà japp na ni nak fu mu toll nii euh, pour dal ni sax ñu dal ni war mëna guerre pour dal joxe exactement si boobu de li nga xam ne que moo di marché suñ sukkandiku ko si ki nga xamne ne que modi Cheikh Dieng dal daal di tontu communiqué bu ONAS bi en tout cas mom dal japp di ni nag communiqué bu ONAS bu ñu mel du directeur ba moko def Cheikh Tidiane Dieng moo moo ko daal di sant mu daal koy def lépp daal di dalal si kawam ki na xam ne kaw moo di euh, Cheikh Euh, Tidiane nak boobu ba ki nga xam que mu di euh, Cheikh Dieng mi ngi dal bu baax baax baax en tout cas la réponse au communiqué de l'ONAS commandité par le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement se trouve dans les pièces jointes transmises aux journalistes lors du euh, point de presse manam li nga xamni mise au point yi communiqué bobu dal di defani ki nga xam que mu di Cheikh Dieng nee na leeral na bu mu dal di ciakal way tassu xibaar yi te itam yooyu pièce jëbbal na li nga xam que moo di xibaar yi donc on mi ngi noonu ba tey mi ngi accusé ci ki nga que justement le ministre Cheikh euh, Tidiane Diey japp ne nak Cheikh Tidiane Diey mom mo dal di nek ci ginaaw li nga xamne ko modi euh, miri man ni kon nak yefi jexakul et que Cheikh Dian ne lâche pas l'affaire euh, ñu ngi koy dal di xare nak ci li nga xamne ko modi euh, Euh, décision wu am solo wi nga xamni tam amana ni euh, dina ko daal di war a jël ndax tak japp na ni fi du ko daal di bàyyi nag alors euh, qui pour justement stopper ces dossiers yi nga xamni ni itam booba ñi ngi jimante entre eux ñi si daal di ni li nga xam nekk mooy seen ay kilifa Ousmane Sonko wala comme sax ki nga xam nekk moo di le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye peut-être pour daal pour daal di mën a indi ay leeral jëmale si li nga xam nekk moo di wàllu wu mel alors ginaaw miru li nga xam nekk moo di ONAS nag dañuy daal di jàll si leen foofu si doon na récemment euh, modifié exactement le règlement intérieur bu assemblée nationale j'appelle itam fu tout comme le chef de l'État les députés ont été élus au suffrage universel direct mom aji melkan mou koy daal fatali ni nin ki nga le président Bassirou Diomaye non len non di député yi euh, par suffrage euh, direct mu daal di tontu ki nga xamné que moo le président Bassirou Diomaye Diakhar face à des journalistes bi don soutenir que ni ñaanon le premier ministre pour mu daal sursoir à sa décision pour d'aller tenir li que une déclaration de politique générale hors assemblée nationale euh, ce que Ousmane Sonko euh, Limou mu en tout cas euh, la députée Adji Mergan Kanouté tant na ki nga que le président Bassirou Diomaye nee na kon nan la fale ñun tamit noonu la askan wi daal di c'est là qu'il a été véritablement anti-républicain madame jàpp na ni nag yi bien dafa am anti-républicain ndaxte nag que mon na ni ki que Ousmane Sonko dafa war a déggal ki ne di le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom ki nga xam ne moo di euh, Aji Mergane Kanouté ñëwaat na si mu gëna yaatu mu dal japp ni tout comme le chef de l'État euh, bi nga xamni ne itam fa nekk au suffrage direct donc ñi xaar li nga xam que modi euh le président bu assemblée nationale wolu ki nga xam que modi Ousmane Sonko pour mu amal euh, sa DPG manam sa déclaration de politique générale il ne faudrait pas qu'avec l'avènement du président Bassirou Diomaye qu'elle soit fragilisée euh, banalisée japp nañ nak institution donc, donc, nga donc, da fonk exactement nekul si ayuk ki nga xam que modi Diomaye la koy daal di cakak cakatee donc du ko daal di nga xam ne que moo di respecté moom ki nga xam que moo le ministre la wala euh, loxom la députée Adji Mergane Kanouté ñëwaat na avec la suppression du poste premier ministre mu daal ni il y avait des articles qui étaient bien évidemment euh, dans le règlement intérieur mais la rédition euh, de ce règlement intérieur n'a pas respecté la procédure normale jàpp na ni sax li nga xam ne que moo règlement intérieur bi respecté ñu exactement li nga xam ne que moo procédure normale bi nga xam ni taw ñu ko daal di wala modifier en tout cas li policiers nous mën <coughs> jàpp na ni dina nga xam réactualisation réactualisation bi amna te itam il est temps ki nga xam nekk moo Ousmane Sonko dem def li nga xam nekk moo di sa DPG avant avant avant de poursuivre mu daa mu daa jàpp ne aussi la constitution dit clairement qu'après sa nomination euh, dafa war a def li nga xam nekk moo di sa DPG euh, donc nag euh, jamono ji modifié nañ exactement boobu da li nga xam nekk moo di règlement ne Ousmane Sonko dem su demul mën na ko jàppee offense au chef de l'État bi nga xam itam Ousmane Sonko war na ko daal di defani ndaxte jàpp na ni itam ki nga xam nekk moo di Ousmane Sonko Bassirou Diomaye moo moo moo war a

Euh, menace bi nga xamni tam itam nako député yi condition bi nga xamni tam itam nako député yi député yi ñoom déjà condition bu ñu mel euh, mujj nañ ko daal di passé euh, donc nak passé neen fi ñuy daal di waxé da nga modifier ou pas fu mu toll donc nak bal bi mi ngi si li nga xam nekk moo Ousmane Sonko na génn amal li nga xam nekk moo sa déclaration lool day wane que ni Sénégal am neen li nga xam nekk modi la séparation réelle des pouvoirs que l'exécutif fasse son travail nous les législateurs fassions notre

di ki nga xam ne moo di Père du duwaat moom itam réagir na jëm si ki na xam ne moo di DPG bu Ousmane Sonko Père Doudou moom jàpp na ni nag fu mu toll nii Sonko si deful déclaration politique générale mooy comme benn euh, el euh, bu dox da do xam exactement fan ngay daal di ni na ni nak fum mu toll nii nag wax ji jeex na ginnaaw ba député yi euh, modifier exactement euh, seen règlement intérieur Ousmane Sonko si samedi ba wala daal di dem amal li nga xam nekk modi sa déclaration de politique générale donc fum toll nii amul xaar donc nak fum toll Sénégal yi ñëpp ñi ngi deglu ki nga xam nekk modi Ousmane daal xol ana ban décision la daal di mëna a mën si li nga xam nekk modi walu wunu mel la alors ñu daal di jàll itam si leneen euh, beneen que décision bi nga xam itam le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye jël na ko alors le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye chargé na le ministre des infrastructures et des transports terrestres euh, aériens daal di organiser lu mu gën a gaawee ay états généraux des transports publics euh, moom ki nga xam ne que mu di le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye jël na benn acte bu bees le chef de l'État mi ngi souhaité pour ñu dadi gëna euh, valoriser euh, une transformation rapide et complète du secteur waye itam ngi euh, préparer aussi benn rencontre nationale ak les services yu ki nga xam ne que moo El Malick Ndiaye bi nga xam ne itam ko ben séminaire ni le 19 21 japp 22 sur août atum 2024 foofu si daanaka Abdoulaye Wade bu Diamniadio mu nekk benn euh, séminaire boo xam ni itam dina dajale tous les participants yi nga xamni ni itam moo daal di ëmmu si euh, euh, secteur transport routier bi objectif yi nak moy fexé ba daal di jappalé sénégalais ci si li nga xamni ne mooy dem beeg dikki bi waaye itam fexe itam accident yi daal di mëna a wàññeeku cérémonie bu ni mel nak El Malick Ndiaye moo ko fas di diriger mu nek ministre des infrastructures et des transports aériens bi nga xamni ni itam dina am niki justement ce 19 août 2024 à partir de 8h30 minutes. mu na nekk benn événement bu mag événement boo xam ne itam euh, fu mu toll nii ñu koy daal di xaare ni lépp daal di war a mën a fàgganiku euh, jëmale si euh, jafe-jafe yi nga xam ne itam askan ñu koy daal dund jëm si wàllu tali bi parlant de tali ak li nga xam ne que moo di wi ñi xaar si kanam tuuti incha allah. ki nga xamne nekk modi le président Bassirou diomay jaxar fay mu daal di dem fofu si diwaanu dëkk bu sell boobu si ko Touba mu nek deuk bo xamni tam en tout cas amna solo si li nga xamne ne moom mooy ko visite bi mu na a doon li nga xam nekk moo di visite wala kon troisième visite tam ginnaaw bu mu daal di koy deme bu mu don soge mu doon nguur gi ben bi tamit moy li nga xamne nekk modi di journée setal bi tay tamit war fa daal di war a mën dem en période exactement du magal xamna nak sénégalais yi woné ñi xaar exactement li nga xamne nekk modi yi ñu bëgg a dem mooy maanaam li El Malick jël décision bi na xam ni itam jël na ko euh, si nga xam nekk moo di euh, màggal gi euh, permettre ñi ñi dem si jàmm ak salaam ñëwaat si jàmm ak salaam ci nga xam nekk moo di le ministre El Malick Ndiaye moom mi daal di dalal xelu li na xam nekk moo di sénégalais yi alors El Malick si li na xam nekk moo di màggal Touba bi ñëwaat na exactement que ni euh, dina daal di euh, def seen kim kattan euh, pour saytu li nga xam ne que moo di njëg bi maanaam dem bëgg dikk bi d'après lui la mission de développer des systèmes de transport performants intégrés résilients sûrs et accessibles à la population et à la portée de main maanaam képp ku bëgg a dem di nga dem si jàmm ak salaam Dakar dem dikki dina nekk si axe yu ko gën a fasantuku waaye itam dafay am itam dina daal di mettre li nga xam ne que moo di toute disposition nécessaire pour daal di war a mën a gunge li nga xam ne que moo di askan wi si li nga xamné que mu di le grand magal de Touba ci euh, bobu de grand magal de Touba ki nga xamné que mu di le président euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñu koy daal xaar dans quelques instants ak ki nga xamné que mu di le xalifa euh, sëñ Mountakha Bassirou Mbacké ay sujets yu am solo itam ñom ñaar dess na ko daal di mëna waxtané ñi ñu si pour gëna a suñu li nga xamné que moo di réew waaye itam fexe itam ba li nga xam bekk moo di dialogue bekk ak aussi waxtaan wi daal di gëna a mëna a donc ci kanam tout tuuti vous les aurez en direct et en intégralité sur les antennes de Sénégal 5 TV Midi Info la woon merci beaucoup de l'avoir suivi mais également l'ensemble justement des équipes en régie Tafa donc c'était pour mieux comprendre l'actualité suñu kan euh, peut-être tay di ndox bi moko ko daal di mais